damay seede fii tey yàlla xam na ko sama bàmmeel laa taxaw bi ñu yàlla taxalee ba léegi amul benn yoon boo xam ne taxawee na taxawaay boo xam ne man ak sama doom yi dama ciy am benn benn jàpp voilà parce su ko su defoon su ko defoon man dama nit buy rafetal pour rafetal damay toog rek tàccu dama koy wax parce que dëgg la yàlla bëgg bu Zeyna màggee ba am ah, jëkkër euh, àddina di doog a commencé ci Ndourkho moom moo ko liggéey du man voilà et ça c'est important voilà honnêtement honnêtement xaaruma si xaaruma si dara xaaruma ci biir avion xaaruma ci appartement xaaruma ci kër xaaruma ci njàngum xale bu ma defee mu def bu ma deful mu def ak non dama naan bu deful ma def

bu waxu nga leen c'est la vérité benn sa dëgg moom la fekk rek dañ koy wax mu am